alal xalaf illa an yasuna asara salaf ki wuutu dara waru ko lu dul sàmm lim fi fekk ak ñoŋal yaa ngi ci sa kemtalaayul kàttan yàlla na suñ borom dolli dëgëral ba li nga ci yéene suñ borom def ci lu kawe njort barakat Cheikhul Khadim di sant itam mboolem njabootu sëriñ Ahmadou Mbacke Tindodi matal ngeen bu baax a baax wëllëre te sëñ Moussa da daan wax ne ñaar laa leen di dénk na ngeen sàmm wëllëre te bu leen tas yaakaar sàmm ngeen bu baax a baax jaayante ngeen jaayante woon ak sëñ Axma seenu doxin soppikuwut seen pësteef yokk na seen yitte gën naa kawe matal ngeen bu baax a baax wëllëre ndax kër gi tey ku fi taxaw daan fi fekk sëñ Axma tey nga ñëw ci kër gi da nga xam ne doxinu kër gi dara soppiwu doom jum juraloon boppam bu fi nekkoon it mënta weesu lii ngeen di def loolu wër la la wu am solo da koy bàyyi xel bu baax a baax di dénk rek suma bokki taalibe yi di leen fàttali bu baax a baax sëriñ Axma kilifa la waaye daa nekk ci ron kilifteef te ñu yilif ko moo ko gënal doon kilifa ki yilif yoon wi yëkkati kàddu fàttali ay digle yu sunu borom tabaraka wa taala doon digle fàttali ay tere yoo xamante ni sunu borom tabaraka wa taala moo ko doon tere ñi wootu sëriñ bi ñëpp it ci lañu ne newoon ñu toll ci jamono joo xamante ni képp ku yarut sa bopp ku la wër te yar dana la yar loola nag ku bëgg a dimbali sa kilifa da ngay fexe ba dagg aw yat teg ko ci sa kanam sàmme ko sa bakkan dimbale ko sa kilifa googee sagale ko bi sëñ Tuubaa di door dem daa am kilifa gu ñëw ci sëñ Moussa ni ko dama laa yërëm ndax yan bu diis bi ak at yu néew yi sëñ Moussa ni ko loo ma dimbalee nag ci yan bi kooku xamut lu mu koy wax mu ni teg sëñ Moussa ni ko xam nga nooy def mu ni ko waa mu ni ko dénk naa la sa bopp téyal ma sa bopp soo ko defee rek bu ko ñëpp defee yan bi dana wayef ñu jàpp ni kenn ku nekk ci ñun nag yaa war a wuutu sëriñ bi ci sa bopp ci digle ak tere mooy fexe ba ni ñàcc ci yoon wi teg ci wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'u ñu teg ci suñu tànk bañ koo wàcc moom mii kat ci loolu rek la teg tànkam ñoo ngi gërëm bu baax a baax nag mbooleem sa njaboot mooy ñi nga bokkal waajur ak ñeneen ñi nga bokkal Cheikh Mouhamadul Moustapha ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ndax la bank tànk daa bankutum xel te nit sooy wax ak moom te la damm ca wax ja lay gën a xam ci loo koy wax loo koy wax war naa leer gisuñu dara lu naqari ci njaboot gi suñ ko gisoon it buñ ko mënta wax ci piblik it daanu wéet wax ko waaye fa tabaarakallaa ñoom ñëpp ñu ngi yéem seen kemtalaay kàttan ci yokk seen yitte ak tege ci kaw yoon loolu ñu ngi ñaanal suñu borom tabaaraka wa taala yàlla na yàgg ndax kat lépp lu ngeen def ci lu baax lu mu rëy rëy rëy nun xeeb nan lu mu rëy rëy rek nun xeeb nan ndax séentu nañ ci yéen lu loolu waaye bu def safaana moom lu mu tuuti tuuti duñ leen ko muñal ndax dañ koo séentuwut ci yéen moo tax nu leen di sago di leen ñaanal ci yàlla mi nga xamante ni dara tawu yàlla mi yéege woon mag ñi ca màqaama yañ nekk yàlla na leen suñu borom yéege ca màqaama yu waajur ya yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla barkeel ci liggéey bi ngeen di liggéeyal Sëñ noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Euh, ñi ngi nuyuwaat bu baax it njabootug Serigne Ahmadou Mbacke Tundóor bu ñu waxee mbooleem fédération mois de góor ak jigéen mag ndaw ñi ne ci réew mi ak ñi ne ci bitim réew ndaje mi nga xam ne moom la sëriñ bi digle woon moo xam ne sëriñaal Aliou Mbacke moo ko digle woon radiyallahu anhu boo fa moo toogi woon jotaayu si Amadou Moustapha ne woon sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóor dey lépp ma sell te luñ koy defal dafa war a seel booba nag la sëriñ Aliou njëkk a digle dafa wax ne nañ ko ko waxal doomi sëriñ Ahmad Tindo Dija muy sëriñ Mbàkke Soxna Lo Mohamed ña demoon tey muy sëriñ Moustapha Ndiaye moom sëñ ma Ndiaye Assane ak baay Ahmadou Diankhar bañ àggee sëñ Moustapha Mohamed dañ ko fekkoon soonu mais dafa jóg toog daan sama wajur woowu de lépp lu ngeen ma fa def man ngeen ko defal kon sëñ Moustapha Mohamed ñu ngi koy ñaan bu baax mu yàgg fi ak wajuroo sëñ Mbàkke Soxna Lo naka noonu it sëriñ bi da nga ñoo santoo mboolem fu sa ab daayira nekk ci région yi walla ci dëkk yi nañ leen woo soññ leen yëg leen màggal bi dafa mel ne nag sëriñ bi sa mbooloo mi nga woowoon ñëpp wuy si nañ la yàlla nga ko yàgg woote te ànd koog njaboot bi. daara ji nag 2006 ba tey ñu koy wax ñu naan daara yi sëñ Axma daara yi sëñ Axma ndax 2016 lañ teg xeer wi daara ji nag daayira Tuhfatu Mutadarrihina ñoo koy taxaw taxawaay bi nag donga yi ak sëriñ bi rek ñoo ko ànd kër sëriñ Axma nag. yaakaar naa xajuñu ci daara jëmmi ke sëñ Axma xajuñu ci daara sëñ Axma it musta am lu mu daan santaane ci àddina mu des ginnaaw kon daara jooju ñun taalibe yi ku dem na nga xoolaat sa bopp nan nga war a taxawee ci daara yi sëñ Axma jooju ndax dara ëpp ko solo fi doon nu ñu koy defal ci àddina lu du daara jooju dara ëpp ko fi solo daara ja nag ñu nga ca liggéey ba ñu ngi koy soññee at mu nekk ñu soññee ko 2016 ba tey ñu koy soññee képp koo xamee ni ci biir kër gi jëwriñ nga fi wala jàpp nga ni am nga loo tanee ñi fi nekk te ñenn ñi yàlla mbooloo ñenn ñi dañuy man ci wàllu doole ñenn ñi yàlla defal leen tawféexi wërsëg ñenn ñi am xel ñenn ñi am seen xam-xam loolu nag kër gi am nañ ko ba mu doy sëkk kon nag képp koo xamee ni dem nga na nga xool sa bopp ndax dañ laa mën ci daara ji wala mënuñu la ci loolu dongo yëpp nañ ko bàyyi xel daara ñi ñu doon woote 2016 ba tey ku dem na nga xool sa bopp ba xam ndax man dañ ma cee man wala dama cee mane loolu daal na ko ñëpp bàyyi xel sëñ Axma nag ñaari bis rek la am ci àddina bisu bi mu fi bàyyi muy màggalu daaru xudóos ndigalu Cheikh Moustapha la lu jóge Serigne Touba bi ci topp ndigal loo xamee ne sëñ Aliou Mbacke moo ko dénkaane woon muy màggal gi bii nag mooy tudd mooy daara ji nag da doon bëgg-bëgg boppam mu yar fa ay nit jàngal leen te jàpp naa ne bâtiment sëñ ma bii su doon senn ñu bari ñëw fi nawet fekk sëñ ma ci biir néeg bi muy seen duñ seetaan mukk bâtiment bi di seen sell loolu moom bérantewu ma ko kon nag daara jee ñuy soññe kenn ku ne xam nga fan la ci sa doole tàmbalee ak fan la ci yem na ci ñëpp jëf am na ci ñoo xamee ni nag mooy liggéeyu mbooloo mi du benn bis du ñaari fan du weer du at buñ fi jógee rek dañ koy waajalaat kon nag ñi ngi xamal ñi ñi bokk ci liggéey bi nañu xam ne yëg liggéey bi te bàyyi ko xel ndax nit kat nekkee ca am ñu la nekkal ci biir war ngaa bàyyi xel liñ la nekkal lan la loolu kat dina yombal ab dox dina yombal tamit nit ñi kenn ku ne sa taxawaay nga gën koo dëgëral bu baax a baax jëfe ndigalit li muy baax baax bàyyi teree ko gën mu ne kon nañ jëkke moytu tere yi teg ca jëf ndigal yi loolu ci la suñu njëriñul àddina ak alaaxira ne sëñ bi nee na ginnaaw dafa ànd ak yoon woo xam ne dox bi dafa sore te it kenn ku ne ni ko sëñ Ahmadou Jaay waxee léegi rek ndénkaan nga yor wa kullukum yusalu an rahin raha loolu suñ tuwaaw nee na kenn ku ne ci yéen danañ la laaj sàmm gi ma doon sàmm loo yow mi wayjur liñ la dënk say doom yow mi borom kër sa diggante say soxna yow mi ab sëriñ li nga diggante say waaye yow mi ab taalibe sa diggante sa sëriñ ndax da ngaa ñëw ne ko jëmbal naa soog àddina ak àllaaxira jëmbal googu nag jaayante la boo xam ne ma nga tàmbalee jaayante ga sama bay jaayante woon ak alayhi salaatu salaam ca Xudaybiya boobee bañ ko jaayee seeni alal ak seeni bakkan ba yàlla na jënd naa ko àjjana moo wutuñ ci dara moo tax saa yu ma see laaj seeni bakkan joxe nañ ko bu ñu sàll seen alal joxe nañ ko boobu yi nga xam ne ñu ngi gàddaayee Makka dina Madina seeni alal ak seen lépp dañ ko faa bàyyi woon ba bañ demee ba Madina ca la alayhi salaam di leen boole di leen bokkale kenn ku ne mutul la mbokk ci waa Ansaar nga xam ne demoon nañ ba seen alal ñu bokk ko dem ba war a bokk seen waa kër waaye gannaaw bu seen borom indi beneen dogal wax ne liy al ak njaboot gi moom digleetul kenn di ko kenn kenn di ci séddu séddu kenn waaye demoon nañ ko nangu woon nañ sax sédd jël seen alal di ko joxe yow loola kon mënu ta mën ko teg suñ kanam linu yàlla suñu borom boole lim nu jox ci am am li mu jox ci xam-xam li mu jox ci xel rafet li mu jox ci kattan nan ko yéeneente waaye nag ban ko ba nan ko yéeneente yi nan ko yéene sëriñ bi waaye ni nga doon wax léegi ni ne sëriñ bi laa yaakaar ba noppi bala ngaa jox addiyee aw des rek ngay jox sëñ bi noonu it mu ne bu sëñ bi ne gaa dem nañ sëñ bi Xudóos nee na gaa yi bu ñu demee kon loolu nañ koy bàyyi xel bu baax kon dafa mel ne bi ñu xëyee ba léegi mboolem liñ jàng ci alxuraan ak bi weeru toll na ci 402 kaamil di ñeenti téeméeri téeméeri kaamil ak ñaar mu mel ne def nañ ko ci alxuraanu karim xasida yi nag seen lim moom kenn mënu koo kenn mënu koo tudd ndax mboolem xasida yëpp rek def nañ ci ay junni junni lépp ñu yéen yool bi Serigne Ahmadou Mbacké Tindori ak magam ju baax ja Serigne Aliou Mbacké ak mboolem njaboot gi jiitu yëpp lu mel ne salaatu ala nabi li ñu def moom kenn mënu koo lim. ab lim bu takku la loolu tamit ñu def ko ngir yéen yool bi Serigne Ahmadou Mbacke Tindodi mu mel na loolu lépp dañ koy def jiital ji ni ko Serigne Aliou Mbacke digale woon suñuy waajur ne bis bi bu agsee ni nga ji jiital njàng alxuraan ak xasida yéen yool bi Serigne Ahmadou Mbacke Tindodi lu ci topp door jee topp kon noonu lañ ko defee kon dañuy ñaan rek suñu borom defal ñu kàttan ak fan gudd loolu waa ànd ak wér yaram defal ñu fan gudd loolu waa ànd ak wér yaram ba lépp loo xam ci am nañ ko yéeneele Serigne Serigne Ahmadou Mbacké Aliou ñu def ko te topp ci ginnaawam ci barke Seexul Xadiim sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee na ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. di jiital ci nuyoo bi saaxibul la a cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan yàlla mu yàgg ci sunu kanam te mu wér nee na mi ngi nuyu a cheikh Ahmadul Muxtaar xalifa cheikh Mouhamadul Moustapha xalifab cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim nee na mi ngi nuyu njabootug sëriñ Touba gépp bàyyiwul kenn di nuyu Serigne Cheikh Aliou Mbacké ak njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha gépp nee na mi ngi nuyu njabootug Serigne Aliou Mbacké gépp nee mi ngi nuyu mboolem kilifa yi fi teew di nuyu sëriñ Abdourahmane Niang mi soog a yegg si léegi bu baax. nee na moom sëñ Abdourahmane nekk na koo xam ne saa buñ xewlee dana bàyyi ay itteem ñëw. ak mboolem kilifa yi nga xam ne jaar nañu fi ci suba ba léegi dañ tudd leen nee na du jar ñuy delluwaat ci seeni tur. waaye mi ngi nuyu sëriñ Moustapha Mbacke ibnu sëriñ Mbacke Madina nee na mi ngi nuyu mboolem rakkam yi nga xam ne ñoo ngi ci jataay bi sëriñ bi nee na kàddu yi kàddu yi gàtt rekk lay doon ndax nee na li mu waroon a wax lépp ñi jiitu wax nañ ko rawatina sëriñ Njañ Njaay mi nga xam ne moo ko joxoon ndigalal mu def ay soññee nee na kàddu yu yi mat na sëkk ndax loolu rekk la la waxoon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp fu fi waay man di jóge ci gox goxaan yi ci dëkk bi ak yi ci biir réew mi ak bitim réew nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax sëriñ bi nee na képp koo xam ne ke teew nga fi wala nga bëggoon fee teew nee na mi ngi ñaan ci sunu borom tabaraka wa taala ak ñeenti téeméeri kaamil ak ñaar yi nga xam ne jàng nañ ko fi. ak xasida yeeg salaatu ala nabi ak bépp yiw bi nga xam ne def nañ ko fi nee na ku fi teew mbaa nga bëggoon fee teew ci barkeb alquran ak xasaayit ak salaatu ala yàlla na yàlla faj sunuy aajo ci barkeb xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa ci barke Cheikh Moustapha al Karim nee na mi ngi sant ñëpp ci yu baree bari ndax ndigal li nga xam ne sëriñ bi sëriñ Ahmadul Maxtaar joxoon na ko ko mu jëm ci indi liggéeyu université bii Cheikh Mouhamadul Mountakha di def te euh, tam digaloon ko waa kër sëriñ Ahmadou Mbacke Tindodi moom sëriñ moom sëriñ Ahmadou Mbacke mii nee na muy bépp taalibe boo xam ne aju nga ci kër gi. da ko waxoon ne. képp ku dib taalibe. na def loo mënul ndax nee na day wax ne. diggante taalibe bu dëggal. ak ku dudub taalibe. dig bi mooy. def li nga man ab taalibe daa war a weesu la mu man nee na li nga man waxuñu ko nee na li nga mënut moom ngay jéem nee na loolu dafa mel ne ñëpp dégg nañ ko ba kenn ku ne def nga ci sa kemtalaayi kàttan ba jébbal nañ ko sëriñ Ahmadul Maxtaar nee na sëriñ Ahmadul Maxtaar jëbbal na ko Cheikh Mouhamadul Muntaxaa kon nee na ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax ndigalu sëriñ bi ku ci ànd mu sotti ku ci àndul mu sotti ndokk bi yàlla dogalee nu ànd ci kon nee na nanu xam ne sunu fajuk ajo adduna ak àllaaxira ci ndigal rek la nekk ndax nee na day wax ne Cheikh Mouhamadul Muntaxa am na santaane yu mu santaane ci dëkk bi am na tere yu mu tere ci dëkk bi nee na yooyu da koo yeesal ndax nee na day wax ne nun taalibe yi buñ xam lu sëriñ bi tere loolu bu ci suñ yoon nekk li sëñ bi digle nañ ko ne jànn rek nee na loolu mooy li ñuy jariñ ndax nee na sëriñ Abdul Ahad dafa am benn kilifa bu ñëw ci moom. dafa am benn kilifa bu ñëw ci moom. bi mu euh, defee ndigalam yi yi. nee na bi mu defee ndigalam yi ak teram yi ba noppi. te ma Mouhamadul Mountakha yeesal ko. kooka daa ñëw ne daa ñëw ci sëriñ Abdoul Ahad ne ko. Ah, mboolem ñi bëgg lu baax. mboolem day. seen xol sedd. na. sëriñ Abdoul Ahad ko. nee na sëriñ Abdoul Ahad ne ko. ñi ci des nag amu ci man aw ma ci soxla. kon loolu nee na mooy lu am solo. kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp. di gërëm ñépp di leen xamal ne. ab taalibe moom. ndigal rek moo koy jariñ. yàlla na nu suñ borom saxal. nee na mi ngi sant nag bokk yëpp. ak kilifa yëpp. nee na bu ñu tuddee nit për kenn day guddi. ndax nee na waaye kenn ku nekk na xam ne sant nan la nee na sant na njabootug sëriñ ma Madiba Sylla ñoom ñi nga xam ne ñoom lañu tuddee woon conférence bi biig nee na sonn nañ ci lool taxaw nañ ci lool lu ne daj nañ ko ci sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di ñaan sunu boroom mu dajale ñoo ngërëmal sëriñ Ahmadou Mbacke Tindodi. nee na màggal gi nag. Ah, nee na li war a mel lépp mel na ni. nee na taalibe jàpp nañ ci. muy biir réew mi muy bitim réew. nee na kenn ku nekk. lay sa def nga ko. nee na ba màggal gi demee nee na noo xam ne. kawe na njortam. nee waaye kon. noo ngi ñaan ci barke sunu borom tabaraka wa taala ci barke xaadim rasuul képp ku fi teew yàlla na suñ borom faj aajo say aajo ci barkeb xaadim rasuul wasalaamu aleykum wa taala sëriñ axma amoo moroom jukkoy yonen ba moom la yor lu am naqar ba dax mu mer du lépp julli ngir ñàkk wer bul ni ma déet lii de dëggu na